waaw merci beaucoup donc administration bi man fi ma nekk moom laa nekk nit ñoo chargé de la gestion du marché donc le marché central dafa am benn gestion bu ñu wax gestion autonome de ba pare dafa dafa à part dafa séparé wu ak euh, l' activité des mareyeurs ñun nunu nous plus sur l' entretien du marché mareyeurs yi ñoom ñoo yor seen activité boobu. donc quand je parle de l'entretien du marché mooy qualité bi ma yor di saytu qualité jën bi nga xam ne moom mooy dugg ci marché bi di saytu hygiène bi di saytu l'environnement du ni bi nga xam ne moom mooy mooy recette yi nga xam ni moom mooy dugg ci biir marché bi ak di génn bu ma permettre un peu ma expliquer ngeen baal ma tuuti ci français bi donc mooy le marché central comme ni nga koy waxee léegi c'est le plus grand marché de la sous-région mm-hmm. bu ñuy xool euh, fréquence journalière bi nga xam ne moom la fa nit ñi di dugg ak a génn ça avoisine entre 8000 ba 10 000 personnes par jour donc parce par jour dinañ aussi dinañ recevoir des fois aussi cent tonnes de poisson par jour donc léegi euh, jën yi dafay jóge ci sous région bi jóge ci tamit ci biir Sénégal muy nord comme le Saint-Louis ak euh, Kayar et cetera day jóge aussi le sud Casamance Cap foofu noonu la ci ëpp lu muy jóge ci Sénégal mais su fekkee extérieur Mauritanie Maroc Sierra Leone Guinée Bissau yu yëpp dafay ñëw ci marché bi mais sous forme gelée day ñëw par format carton. bi ci mhm. ëpp moom mooy ñëw ci marché bi. donc loolooy waral importance su tonne cent tonnes par jour yi yi nga xam ne moom mooy transiter dans le marché central léegi le marché central dafa am diverses activité au de début c'était le poumon économique de la banlieue maanaam moom dafa doon servir de de. un, un quai de débat de ravitaillement de ravitailler les autres marchés annexes. Mm mais un pont de port port euh, marché de débarquement la tuddoon donc boo xamante c'était la vente en gros. Mm-hmm. léegi mu dem ba moment bii ñu toll marché bi nekkatul un marché de vente en gros mais c'est un marché comme tous les autres marchés. Ah, de mais mais ça se comprend parce que marché bi fu mu situé au cœur de de la ville de Pikine. Mm-hmm. nekk le poumon économique de la banlieue. donc jeunesse muy jeunesse bi muy ñi nga xam ne ñoom ñëpp dañ nekk dans le chômage dañuy préférer ñëw ci secteur de la pêche ce qui fait le secteur de la pêche le secteur le plus euh, boo xam ne mu ngi am générer plus de 63 mille emplois ba pare di contribuer à hauteur de 3,2 pour cent du PIB. Mhm. donc mu nekk secteur bu am solo boo xamante ni jot na nit ñi mën ko saytuwaat donc marché central mu ngi ciy def lu am solo mooy di assurer la sécurité alimentaire de la population di assurer aussi euh, une bonne. ñu koy waxee service du, du poisson au sein de Dakar et aux alentours de Dakar. Euh, yéen a ngi saytu qualité bi. am na mm-hmm. solo mais au sein du marché. yan mm-hmm. problème ngeen fay jànkuwanteel. waaw problème yi ñu fay jànkuwanteel bari parce que vous savez que le marché il a été euh, inauguré en donc infrastructure yi fa bàyyi woon en 92 mënul tenir jusqu'à on est en 2023. yooyu moo fa nekk ba léegi. moo fa nekk ba léegi la chambre chambre froide bi doxatul donc on avait au début marché service de vente de du poisson amoon nañ tamit ay chambre euh, de conservation du produit amoon nañ aussi une usine de glace en bar une usine de glace en écaille donc loolu yëpp dafa taxaw léegi benn doxatul